bismillahi irrahmani irrahim sala allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa sallam rawa alimaamu malikun fi fi muwataihi an abdillahi ibni abdirrahman ibni macmarin al ansaari an abi yunusa mawla caaishata an caaishata radiallahu tabaraka wa taala anha anna rajulan qaala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa waaqifun ala albaabi wa ana asmaa ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam inni usbixu junuban wa ana uridu alsiyaam fa qaala sallallahu alayhi wa sallam wa ana usbixu junuban wa ana uridu alsiyaam fa agtasilu wa asuum fa qaala lahu rajulu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam innaka lasta mithlana qad gafara allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma taaxar fa gadiba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaal wallahi inni la arju an akuna axshaakum lillahi wa aclamakum bima attaqi Sayyidatuna Aisha, may Allah tabaraka wa ta'ala be pleased with her, reported that she overheard a man standing at the door of at the door saying to the to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, O Rasulullah, I get up in the morning junub in a state of major ritual impurity and want to fast. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, I too get up in the morning junub and want to fast. So I do ghusl and fast. The man said to him, You are not the same as us. Allah Tabaraka wa Ta'ala has forgiven you all your wrong actions that have gone before and those that have come after. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam got angry and said, By Allah, I hope that I am the most fearful of you with respect to Allah. and the most knowledgeable of you in how I have taqwa, of how of what I avoid doing. Um, this hadith shows us that there are many things people think break one's fast, yet they, they don't. Uh, for example, al-ihtilamu fi, fi, fi nahari Ramadan. You just have to make ghusl and continue your fast because it's out of sleep. It is not out of your choice. اسمش جماع يعني لا هذا احتلام لكن هذا الجماع في ليلة في ليلة رمضان و... وأن الاستثال مباشرة نعم نعم حتى ولو بعد الفجر واحد جامع مع زوجته أو حتى لو بعد الفجر نعم ثم أصبح جنبا يغتسل بس الجماع يجب أن يكون قبل أن يكون قبل الفجر أوكي. كما في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر يعني النية تكون قبل الفجر النية تكون قبل الفجر ولو بدقيقة أوكي. ولو بدقيقة مش الواحد يخلص ينام ويكون نعم واحد يجامع أو يأكل مثلا الذي يتسحر هو في نيته في نية من تسحر فقد نوى لأن النية عمل القلب فاهم؟ النية أعرف أن الاغتسال من الجماع في رمضان يجب يكون قبل لا الفجر لا. هذا هو معنى هذا هو الموضوع نفسه لا يجب أن يكون قبل الفجر الجماع يجب أن يكون قبل الفجر أما الاغتسال فيمكن أن يكون بعد طلوع الفجر هذا عين ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاهم؟ يعني أن يصبح الرجل جنبا هذا لا يؤثر في الصوم فاهم؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله لكم بسم الله